438 communes yi mouvance présidentielle moo ko remporté 500 moo ma bantuwaat ko 553 commune yoo xam ne ci lañuy yeewoo ñun ñëpp ñun sénégalais yi 438 commune Benno Bokk Yaakaar ak i alliéem bu majorité présidentielle ñoom ñoo ko gagné ñu it ay département boo jëlee département yi. 43 la ñu 46 la ñu waaye 43 yi parce que am na ci département du Dakar ville la am moo tax muy 43 38 yi Benno Bokk Yaakaar ñoo ko gañe mën naa dikkit ngi leen neexee ci voix yi waaye loolu lépp it am na fu mu féete ak fu mu ne dingeen ko gis ne leen dinañ ci dellusi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 ci tontu Mor fii sa moom fii sa le vent est terrible c'est bon Ousmane oui waaw Aïcha allez-y oui madame va falloir qu'on vous passe le micro, sinon je vais pas vous entendre. Voilà. Voilà, ñu ngi koy jox bi. Andi andi. Ñu ngi koy jox. Bonjour. de parrainage euh, qui est revenu sur place et sur Pénéba. Sachant la Cour de justice de la avait euh, ordonné, le terme au Sénégal, euh, pour permettre une libre participation aux élections. Euh, première question, le Sénégal est de suivre euh, cette décision de la Cour de justice de la CDAO. E Deuxième question, quels sont vos arguments pour défendre ce, système de parrainage qui, fait donc débat Et troisième point, est-ce que vous seriez prêt à aller à des discussions euh, pour, avec les autres acteurs politiques Madame, je ne sais pas si vous êtes, vous êtes certainement française, nest j'ai suivi jusqu'à récemment la validation des parrainages aux candidats à l'élection présidentielle en France. Bah, ça de la même logique. Une logique, <laughs> de simple d'organisation des élections où on ne peut pas avoir euh, géré, euh, rationnellement des milliers, voire des millions de candidats, tout comme on ne peut pas gérer des milliers de listes. c'est extrêmement difficile. Il va bien falloir avoir un tamis. Et je pense que cette question